Basuma Basuma Mbara su ko non ko am na lu muy tekki lu bari kenn du wax lépp ndax tey ci sujet bii lay wax le système ak illusion mooy lan Sénégal te wax bu jotee rek ku nekk day wax ndax du lépp la ñu war teg sur la place publique mais maman yi wax dafa jot ndax xeex dafa jot deewoo dafa jot dëggante dafa jot. maa ngi live am ñu ma woo am ñu ma koj am ñu ma dab ñëppay wax ak man ba am ay commission yu ñu monté ñoo xam ñoo war xeex contre ma maax samay combattant te ñu ñu xam lañ jël ñu ñëw ci illusion yi ba noppi. dëkk julit ñu ne Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans faux temps yëpp ñu ngi werante oustaz yi ngi werante Omar Sall ngi werante ñëpp a ngi werante pourtant Israël ak Palestine ñu ngi xeex sëñ Mountakha jël fi deux cent millions de francs yónnee ko Turquie jaat fi cent millions yónnee ko Maroc waxtu boobu Israël nekk di rey ay jullit est-ce que wax nañ islam laay ñëw tey pour lan Sénégal mënul wax benn sëriñ du leen wax ci xeexu Israël xam lan moo tax Israël mu ngi xeex seen courant yokku dund bi cher lool Sénégal ndax ay société israélienne ñoo gérer économie Sénégal courant bi israel moo ko gérer moo tax keroog man ne waa Sénégal yokku leen ndox bi seen compteur yi kan moo ñëw dàq fa doomu senegal dugal fa doomu israélien yéen ñëpp yaa ngi ci xool sëñ Muntaxa na wax Palestine wax lañ ci Palestine gaaw leen gaaw leen fii mooy xeex bi islam bi loolu la ñu imposé nii pourtant yónni na turki xaalis fee ñu ngi rey ay jullit te yéen xale yi la jeunesse Israël Palestine bii di xeex pour won la ne islam baa ko fa teg du xeexu jullit ak juif 1917 bii passé 1917 bii passé ci biir première guerre mondiale ci la coup d'état am Arabie Saoudite israélo palestino je défie ki quiconque qui habitait là-bas sur ces terres ñoom ñaar ñi fay xeex ñëpp kenn dëkku fa nit ñu ñuul ñi fa dëkkoon dañ leen jël yóbbu leen Éthiopie kañ lañ leen delloo si 2016 lañ leen commencé delloo si Israël non ay nit ñoo fa dëkkoon ñuul kuk ñu jëlee leen fa. ñan ñoo leen fa jëlee les premiers colons qui sont les premiers colons les arabes ñoo fa jëlee nit ku ñu ñi yóbbu leen ba Éthiopie déposé leen fa arabes yi ñëw fa moom ko. guerre mondiale am ñu njëkk dóor toroxal église toroxal juif tey ñun la ñu war a toroxal moo tax tey ñu jëlaat juif après première guerre mondiale franc-maçon yi ñoo fa ubbi état franc-maçon yooyu fa ubbi état tey ñooy joxal Sénégal c'est des sionistes man dama nekk fii naan leen kii moo diw kii laalul diw kii moo laal diw kii laal diw eh ñëppay laalante ñëppay laalante sëriñ yonent waliw xutbu zaman imam délinquant cag ñëppay katante tout le monde ku dul Christ ñëpp xëy na wax jeedul nekk mais ku dul Christ ci kattante ngay judd ci kattante ngay am doom ci plaisir du bases de ndax jaamu yàlla la du bases sëriñ bi day naan ndox sëriñ bi day naan ndox ak bu doon sëñ bi day naan ndox sëñ bi du mu nekk gabon di fa am ay doom bu doon sëñ bi day naan ndox du mu nekk gànnaar am fa ay doom wax day yenu maanaa logique ci bopp li ngeen di werante naan lii kii ci bidaal la kii nekkul ci bidaa wax leen ci Israël ak Palestine pour lan suñuy xalif généraux ñu ci wax pour lan Sénégal yéen kenn nangu ci wax te seen courant di yokku Israël di jëlee xaalis senegal di rey ay julit yéen jullit yi sañu leen ci wax ba pare ngeen ne dëkk jullit la Ousmane Sonko samay wax du neex dara tey fan yi sax samay wax du neex ndax dëgg daf ma sonal fu mu toll nii dëgg daf ma sonal ndax politiciens ñu bari dañ ma yaakaaroon xarit te du ma xaritu kenn sama cat yëpp loolu la bu ma nekkee ci combat moom da ngay foog ne jaam laa fekk du ma jaam duma xaritu kenn ndax république moo ma ñor Sonko commencé na dem ardo mais on s'en fout de son ardo ndax peuple bi Sénégal moo gën a dem ardo Sénégal moo commencé dem ardo Sonko newoon na leen dëkk bi day metti noo mamaay vous allez encore souffrir mais moom tam commencé na ñam commencé na dem ardo ndax mu ngi grève de la fin li médecin yi di wax ak yooyu nag naka ñeneen ñi traduire pas man awma temps boobu ndax ci combat laa nekk ñu xeex génne ko fi moo gën naan dafa sonn nag sonn la dafa lii comme Sonko ci combat ultime la nekk ku bëgg a xam ci combat ultime la nekk démb nga njëmb Touré def na interview wu gudd du ma nekk di développé waxu jàmbur di attardé sam bopp j'ai pas ce temps def na interview bu gudd dem leen Seneweb tàpp leen Ngagne Demba Touré ngir yàlla ngeen toog déglu temps jël interview Ngagne Demba Touré ndax sama benn wax bu ma mos wax rek Ngagne Demba Touré tëb na ko moo tax alhamdulilahi rabbil alamin DGE ne du leen jox maa xam nga ne DGE day fen dañuy nappe DGE day fen de dañuy nappe communication bi ñu leen def naan kenn du leen jox fii ko day dañuy fen dañuy nappe quatre-vingt pour cent des juges nekkatuñu ci illusion yi Macky Sall nekk jàpp Sonko kenn du ko jox lii kenn du ko jox lii Macky Sall ne teg ñëpp tiit ah bu ñu xeexee Macky jël réew mi Macky du jëlate dara ndax Macky soxlaatul dara Sénégal xam na ne ay doomaraam rek a ko wër ñi ko doon wax troisième mandat yëpp ay doomaraam la leen Macky Sall jàppee tey du waxtaanu weewu béy waxtaanu famille Macky si boppam day toog ne ay doomeraam rek a ma wër ndekete parce que ay doomeraam rek a ko wëroon léegi doomeraam yooyu war Macky Sall nag la am doomeraam yoo xam ne ci état la ñu bokk te kenn du sacrifier seen intérêt dama ci waxante kilifa mu may wax bay jooy koo xam ne xool du politicien du dara mais moom ay intérêt jaral na ko ma may dugg hôpital principal ren di Sonko jël responsabilité yi mu jeex ndax bañ ay intérêt dem si laa ko ne mais yéen vous dans des illusions mu ne ma man lu ma Macky sam samay intérêt yooyu mën na ko say intérêt faareetuñu affaire intérêt li nga fi am yëpp da ko sàcc liggéeyoo ko da nga toog muy dox fii kenn du fi jullit buñ dee jullitam ay jullit privé lañ Sénégal diine ji c'est privé c'est une religion gérée par Israël je signe de Perse Coran bi yéenay cotiser Israël di noq Palestine jël suñuy arme ngeen di cotiser Israël di noq Palestine sénégalais di di cotiser ñuy noq Palestine seen mun taxaa jël seen xaalis di ko jox ñeneen ay Turquie ak ñooñu ñi nga xam ne amuñu seen jot buñ ñëwee Sénégal di ñu investir jël seen xaalis mais du ñu may Sénégal ba tax état napp na napp boo xam ne ñëpp a ngi ne tek kon xam nga ne léegi réew franc-maçon ngeen nekk réew daana xaraam lañ nekk réew juif lañ nekk foog ñu nangu ko tëddee kenn du ma teree wax li ma xalaat ay naan ma war a wax si Israël ak Palestine c'est parce que man du ma naa fiq faal nekk ma seen jullitisme privé bi ngeen nekk Sénégal je ne suis pas dans une religion privée samay diine maa ma gënal yéen état yaa ngi di dox ci illusion te yéen dëkk bi xamu leen ne état mu ngi dox ci illusion bu garaaw di leen won doole fekk doole bi nekkatu fa dara nekkatul ci état fu mu toll nii dara nekkatul ci état Macky dirigeetul dara ci régime libyen nekk. te gis nga jiixi jaaxa bi commencé am seen biir ay ñoom Moussa di xëcc fii Marème Faye di xëcc fii kay di xëcc fii xam nga lu mu nar a jur. la gabonisation dinañu gaboniser Sénégal gendarmerie jël senegal GP gis nga dinañu xoolee fii ñun ba GP jël Sénégal coow lu jeex ku nekk dem. pour won leen ne Macky Sall parewul pour def transmission ak Ousmane Sonko waxoon naa leen ko du def passation de service ak Ousmane Sonko te dëgguñu ndaye mënut a nekk. ba tax na ñoom ñu ngi dox ci illusion bëgg ko def dëgg am ñu ma woone ni ñu gunge xaw ma kan tayib eh un mois deux mois bi ma ne nañu xeex da ngeen ma ne noo yan patriote ak yéen ñi daan jàppale gars yi xeex ma waxoon. ne ñu cotiser pour campagne bi man leen gars yi kuy dem campagne danga fay yegg cotiser leen ñu xeexax ñi pour Sonko ngeen ne ma non liste électorale yi gauche droite waxtaan naa ceeg ay responsable Pastef ñu ne ma Sonko mu ngi ci liste bi kenn mënu ko ci génne ma ne leen da ngeen ni dul am na kenn ki ba tey nii wóyootum ko téléphone ba tey je ne réponds plus parce que da ngay wax ñu lay jox ay certitude na non kenn mënu ko ci génne affaire bi du yegg justice dañ koy lii xamu leen Sénégal nu muy doxee te xam nga lu ma metti illusion yi nax sa bopp bi xam nga lu ma neex Pastef day nax boppam Macky Sall bëgg a nax ndey réew mi mais waa Pastef dañuy nax seen bopp. waa léegi par force day bokk eh bu kenn pare ne kenn bu kenn jëli kenn ñu xool ndax Sonko day bokk bu kenn xeexal kenn ñu xool ndax Sonko day bokk bu dara tuuru ñu xool ndax Sonko day bokk. teg leen ko dans la paix rek ñu xool ndax Sonko day bokk xaar leen carte xaar leen justice. kenn dootuma xeexloo xeexu kaña xeex tey suba ngay regroupé waat fond xeexaat gannaaw suba regroupé waat fond xeex j'ai pas ce de ku nekk ne jël sa responsabilité xeex. va bien ku nekk jël sa responsabilité xeex bii pas moom foofu laay xeex xeex il faut que ba ça va bien les a bien bien. Ah, hola. les ah, affaires. hello no English only. you speak English. a a No, see, look, it's Sally. You gotta go this way? Yeah, yeah, this, yaa gis de anglais yeeg ñëpp laay waxal anglais lañ may làkk foog ñu xam fi ñu koy teg dootuma xeex ci désillusion foog ñu def ko Israël ak Palestine dinañ teg plan yëpp What? Now she look. Look. Look your for. Yellow. This is what she's looking for. The what? yellow. The, no, no, the, the, the, yellow one. No, next to it. Next. Yes, yes, yes. Ah, yes. Uh, this yellow from red, but she yeah, wants different. she wants a brand new one like a pink, uh, yeah. a, pink a raspberry, a red one. She wants a, a red. No, no, red. that's no red. red. Where can she? Where can we go to buy a red one? Where can buy red one? It's rent today. Rent today. Rent today. Rent today. You You, you I haven't looked. No, just today we Yes. In this one. ay samay produit rasta xeex bi mënatuñ dem xeex tey suba ñu tëb xeex gannaaw suba suba ñu tëb xeex gannaaw waatu suba suba ñu tëb mënatul nekk Israël Palestine organiser nañ lépp yéen nag da ngeen doon cotiser pour dem campagne yi yéen patriote yéen Pastef a newoon woon da ngeen di cotiser pour dem campagne da ngeen di cotiser pour jàppale Guy Marius Sagna léegi loolu yëpp soxlaatuñu ko cotiser leen pour ñu xeex ak ñi Ousmane Sonko doon candidat ndax force xeex moo ko mun jox candidat pour parrainer Ousmane Sonko illusion bu état teg commencé jël carte jigéen ñi parrainage yëpp ñu ngi leen di mettre en mal ndax kenn du jox gum Sonko fi seen bu ñu xeexulee dañ ko yëpp ba fin ba fin novembre pour jox ko fi seen fekk na dinañ jël carte d'identité yu bëri doublon yi au minimum yaa ngeen soxla 3 millions mais jàppale ne doublon yi dina mat au minimum 1 million doublon bu dee dañ leen d' accord Ousmane déposé conseil constitutionnel da koy daaneel pour doublon parce que carte d'identité maire yi ñuy jël yi yëpp jàpp leen ku ci parrainel Pastef daanu ngeen prison bi boo leen yaakaaree si ñun tëj ñooñu tam duñu voté kon Macky Sall va faire le maximum bu ñu wàññee loxoom te wañ loxoom yomb na Sonko gën gii wax boobu di ko dégg tant que leen ko duma ci avancé fausse apparence mooy illusion yi ma Macky Sall nekk ci la waa Pastef nekk Sonko nekku ci te ngañ démb Touré wax na leen ko démb lan mooy illusion c'est une fausse apparence matérielle ou moral qui en nous voir les choses autrement. Quelques, ce sont <laughs> fausses apparences matérielles ou morales qui nous voir les choses autrement. Quelles que ce soit, semble ce jeu de nos sens de nos esprits, spécialement fausses. Patriotique, il faut le Macky Sall yam. Spécialement fausse, la patriotique commencé. apparence l'on attribuait aux démons ou à la magie une illusion diabolique Macky Sall mu ngi tool ci ma seen bàyyi ko fi wax dem koy rendi patriote yi nekk si waa ñun waa ji daf ñoo xoo waa ji yëfu dëmm lay def c'est waa ji dañ ko ragal moo commencé am waa ji ñemewuñu ko moo commencé am waa ji dafa dof moo commencé am gënu leen dof Macky Sall mi gënuñoo def ay illusion la Macky Sall dafa am benn illusion fu mentalam yem te yóbbu na leen fa ndax napp na leen. Macky Sall si illusion Macky Sall mu c' est une fausse apparence matérielle ou morale qui nous faisant qui en faisant voir les choses autrement quelque que soit semble se jouer de nos sens ou de nos esprits spécial spécialement. patriotes yi ñu ngi si seen illusion ñu seen illusion, spécialement fausse apparence, que l'on attribuait aux démons. ndax Macky Sall day jàpp di rey di tëj ngeen ne dëmm la te mu teg ko ci ay loi voté loo leen terroriste Ousmane Sonko di ko kaas kenn topp ko si loi bi jàll moo leen di rey benn sëriñ ñemewul cotiser si rey bi kenn ñemewu leen jàppale si rey bi Israël moom lay def tey Palestine kenn est ce que na jàppale est ce que Sénégal état wax na est ce que sëriñ ñem li Israël jiiñ Palestine la leen senegal jiiñ yéen waa Pastef loolu la senegal jiiñoon PAI yi bu Majhemout Diop loolu la Sénégal jiiñ MFDC ba tey te du dëgg tey dëgg day feeñ nous som à l'heure du verseau est-ce que waa Palestine dañu teg xeex bi ne ci waa Israël dañ ñoo xoo ba tax ñemee ñu song Israël déedéet kenn xoowu fi kenn ndax kenn gënul kenn bàyyi kenn gënul kenn ndey mystique xam nga ku muy gëm ku nekk ci illusion mu mystique ku ko gëm lay jàpp mënoo leen ne dëkk julit la dëkk la gëm mystique ba mak Sall war leen ken kenn sañul xeex ku nekk na nañu xaar état da ngeen ni duul état mënut a régler lii avocats yi ils ne vont rien dëgg moom ma sonal ngeen ne Macky Sall dafa jabalig ñemew leen xeex bu ñu xeexee day rey Sonko yaa ngeen ba tey ci seen illusion yi en philosophie yéen ngi jàng école lan lañ leen wax ci illusion yéen les élèves de la terminale ñu double terminale ñi nekk université lu ñu leen wax en philosophie c'est une perception erronée du monde extérieur ou de ses propos croyances fausses le propre illusion waaw le propre illusion est d'être incorrigible, ce qui distingue de l'erreur. <laughs> la réalité illusion la réalité c'est une illusion yéen ñi jàng philosophie la philo euh, l'illusion c'est une perception erronée du monde extérieur ou de ses propos croyances fausses le propre illusion est d'être incorrigible ce qui distingue de l'erreur nit boo jàppee ne kenn mënu la corriger yaa nekk toujours si yoon rek ci njuumte ngay dëkk loolu lañ leen jàngal école ci philosophie ci illusion yooyu ngeen bëgg a toog duñ ci dem de ay dañuy teg réew mi ci yoon te réew mi nekk tu si yoon du dox la réalité est une parce que la vie humaine <laughs> la réalité est une yow sa dëgg da ngay fag ne mooy dëgg Macky Sall fag na ne moo nekk ci dëgg ñëpp ñu nekk ci islam bi fag na ne ñun ñoo nekk ci dëgg Sonko mënut a nekk candidat Sonko mënut a nekk président Sénégal ñu nekk ci islam bi loolo seen illusion loolooy seen dëgg ñun ñi anti islam suñu illusion non pas anti islam ñun ñi anti islam comprendre nañu ne. avec ou sans Ousmane Sonko la don de soi bu Ousmane Sonko waxoon moo doog a yegg si ñun ñoo nekk ci ay illusion mais pas Ousmane Sonko mi pare pour joxe bakkanam la vie humaine n'est qu'une illusion perpétuelle on ne fait que s'entre-tromper et s'entre-flatter la vie humaine n'est qu'une illusion perpétuelle. On ne fait que s'entre-tromper et s'entre-flapper et sentre ñii dañuy naxante ñii di dóor pour jàll mooy géwél yeeg ñeneen ñi ñuy clash sans yëpp si laay fii Sonko nekkul ci luñ nekk Sonko combat bi xam na ne bakkanam wala bakkanu Macky Sall moo ci des. ñun ñi nekk ci illusion yi ñu ne dañuy fal Ousmane Sonko par force. ndax moom mooy incarné anti système bi te yàgg naa leen wax ne Ousmane Sonko seul ne peut rien faire am ñu ma weddi Ousmane Sonko seul ne va rien gagner Sonko seul ne rien faire absolument rien bi ma ko daan wax ñëpp non xamoo ko non waa léegi ku caabi génnee ginnaaw wala ku ñu dugal ci biir bàmmeel loo mënal sa bopp wax leen ma lu Sonko mënal boppam moom may ay waleen na def laay wax ak non état mënu ko tëj capet nay leer de xam luy état xam doole état xam état nu muy doxee xam luy état de droit à la manière africaine kenn du wax lépp illusion yi état di doxee ba ñu jaay leen jaay yu metti yi mooy que ne xeex bi foog ma yóbbu ko Casamance juge bi lu mu décidé dafa am ñu muy jàppale parce que juge bi mu ngi libéré juge bi mu ngi libéré amul lu ñu jéeñul juge bi bu ñu dëggul nday Macky Sonko ne sera pas candidat aucun membre de Pastef ne sera candidat aucun membre antisystème ne sera ñoom la seen biir ñoo koy séddoowaat ku falu baax na di nga jéem def lu occidentaux yi soxla ba xam ci ay membre Pastef yoo xam commencé nañ négocier ak occidentaux yi li ñu bëgg a waxloo Sonko ak li bëgg a ak li Sonko bëgg a def bu ko Sonko waxee ñu bëri tar seen gémmiñ comme man nag du ma jiitu kenn ci mbaram ñoom ñoo xam. bul wax si Casamance Casamance ci ay illusion rek lañ leen teg mooy lan fen buy nuancé. rebelle yi ñoo jaay yamba dañuy duul Casamance rebelle mosu fa jaay yamba état mooy jaay yamba. preuve yi tangible état mooy jaay yamba preuve yi tangible man bu ma daan dem ci jëkkaay yi gars yi dañ ma naan garang nga àndaaleel ñu suma ma rombee nii ci toolu militaire yi laa ñëw baab leen chargé sama saak ba mu fees yóbbu dem déposé. ay ñoom major Kandji dangay wax ma gis ñu bëri commencé wax ñu monté seen benn équipe boo xam ne équipe bi Maimouna Ndour fay mu ngi ci Aminata Diaw Fada Cheikh baaxum major Kanji Mbay Samb Abi Pay kii kala Adama fay waaw Adama fay ak Waré Jaw def seen réunion fan mairie Grand Yoff sous la présidence de Barthélémy Diaz dem génnee ñu ma xam pour xool sama état d'esprit sama état nu may attaqué major Kandji yow ay dem na tuubaa ku sañ def lii sañ na def lu raw loolu xam ngeen sama état d'esprit ku nekk xam nga yow major Kandji xam nga Casamance bi ñu waree dem zik yow demoo da nga porté wu malade gars yi jox la oto gendarmerie bi nga yóbbu xale yi école moo tax saa yi bay toog di wax ça m'étonne Moustapha Cissé Lo ndeysaan toog na fi ne waa nguur gee drogue yéen ñëpp bañ te pourtant Moustapha Cissé Lo en 2011 ñun lu ñu defal Macky Sall tey bu ñu ko defaloon Ousmane Sonko bi Sonko falu na bu yàgg mais c'est dommage Sonko n'avait pas compris yéen ñëpp ñu naan MFDC de mais lu ñu defal Macky Sall MFDC Casamance en 2011 2012 bu ñu ko defaloon Sonko falu na. Moustapha Cissé Lo waxaatal ñan ñooy bay yàmbaa ji waxal waa yéen boobu comprendre leen woon dugg si di romb si toolu yàmbaa yi da ngay gis tool ak cat ba cat hectare ak hectare armée ngay fekk ñuy garder secteur bi. Moustapha Cissé Lo ngang téye gémmiñ gi ne lan moo xew ni ñu ne ko déedéet boo nekk ci ISEM doo xool yi yow jàppal na rek rebelle yeey bay yàmbaa bi mu leen yóbbu ci camp man maa ñaan militaire yi sac jël benn sac ubbi ko def ci plus de 4 kilos chargé ko yàmbaa ba mu fees pour yóbbul ko rebelle yi comme kado taal leen seen internet xool saa bu militaire yi attaqué position rebelle dañ fay fekk ay këyit yu ñu laxas ba yàmbaay bi nëpp moom mooy maron su boobu maron su bi dañ koy sàcc andi leen ko Dakar ngeen di tux di rey seen bopp boobu kenn du ko tux Ziguinchor xalaatuñ ko ku lay ñaan yàmbaa booy ñëw ñu ne moom mooy bay yàmbaa gi heureusement Moustapha Cissé Lo leeraloon na ko nee na membre gouvernement bi ñooy assemblée nationale la ko waxee nay leer de ñiy bay yàmbaa ji xam nañ ko ni ñu wax maa ngi waxaat de jaaykatu yàmbaa Sénégal yi yaa ngeen koy jiñ waa Casamance rek ak doomu Casamance te man leer na ma sama digganteeg sama borom mi état Sénégal mooy jaay yàmbaa ji parce que c' est l' armée qui surveille armée loolu la gën a surveiller Casamance que ay zircon yeeg yooyu Macky Sall sax moo ci intéressé wu. mais état yi fi jaar yëpp li ñuy liggéey ci yàmbaa ji Casamance kenn liggéey ko ti nguur si boppam moo koy liggéey c' est l' état profond. commissaire Cheikhna Keita waxal yow it yéen les généraux commission bu dem Ziguinchor code 250 xam nga fu may waxee yàmbaa ji kan moo koy bay. mais ci illusion lañ leen teg sénégalais yëpp ñi ngi xeex Casamance ñi ngi bay yàmbaay gi ñi ngi dagg bant bi ana rëbe la camion bay dagg bant gars yi moo suñu dagg bant bant bant bi Gambie lañ koy jaayee ay chinois koy jël si armée moo leen di sécuriser bu dugal leen biir Gambia kenn du wax lépp mais bu wax joti foog ñu wax foog ñu wax ndax réew maa toll foofu li ñu leen di jaay Casamance yëpp archi faux def na ba ñuy xeex ak militaire yi def braquage yi def na ba bokkuñu MFDC ñu sax ay rebelle duñu sax ay joola la plupart ñoom li ñu jël comme ay surga jox leen ay arme ñuy bay jiba ko bu doon dund dinaa ko mettre devant les faits accomplis mais nguur gi ñu si actuellement ni ñiy bay affaire bi duñu ay homme politique moo tax boole leen rek tu la en danger la vie de beaucoup de personnes parce que ñoom tam bokkuñu ci combat bi kenn voté lu leen mais lu ñu wax ñu jiñ ko Casamance. liñ def Ousmane Sonko nii nag tëj ko kaso di ko pare rey xewoon na fi Kourma Sagna 100 mètres lañ ko fekk yónnee ay nit infiltré ko pour rey ko pour mu nopp ci affaire boobu Kourma Sagna blessé nañ ko biir 100 biir prison waaw Kourma mi moo tax ba leen Macky Sall a trahi la Casamance moo tax saay su may wax appuyé si Casamance doo leen xam. Macky Sall ñoo ko wan ne état mooy def lu bëri même Ousmane Sonko moo tax des fois man leen il est méconnaissable de l' état lu bëri mun ko comprendre ndax tey boo ko faloon danaan nañu xeex yàmbaay bi rey ko ñu ne ko déet kaay régleel ñun ñii ñooy béy yàmbaay ji on se calme doo wax loolu yàmbaay jay doxal li yàmbaay jay doxal li comme blanchiment d' argent yi rek Wally Seck day ñëw tëgg France bu ñibbee ay ñaata milliards la ñuy déclaré CBAO ay 16 milliards 20 est ce que da koy am fii loolooy dóor bi mais ñooñu bokkuñu ndax ñooñu faluñu leen kon waruñu di attardé wu ci ñoom ñun dañu war a wuti wu ci question illusion yi état bi teg naka la ñuy dëggee seen ndey xeex jëlee fi Macky Sall naka la ñuy dëggee ndeyam wañ la xam ndax Macky Sall yoonam nekkatu si moment dafa am ñuy réglé deal bi si suuf kon xoola billahi bu ñu xeexee même pas deux jours xoola gouvernement mooy reculer na leen non bàyyi leen ñu def ñuy wax nii wax nii après xëy na bu ñu demee déedéet élection rek lañ ko mën a wekkee te buñ ko wekkee élection bal lañ koy dóor mais c'est dommage nag sëriñ saa ngi ñaxtu su suuf ne sonkoo gën gii ndax gii chrétien la dëgg moom ma sonal mais génne Ousmane Sonko nii tam ah c'est des risques et des périls de Moussa Fall de moom pare na pour gaboniser dëkk bi génne Ousmane Sonko ci kaso bi ndax waxu sëriñ si rey ko ñi dem coup d'état gii mari sagnaan noq fële Sonko noq fële looloo ko arrangé def na ba moom bi mu koy wax saaga la ci teg pour ñoom ñaar maa ko rafetal ne noq fee réunion yi ça ne se passe plus au palais démb mairie Grand Yoff la gars yi réunion yi leen lépp li ñuy yëg yéen a ne da ngeen di cotiser xaalis pour dem campagne xaalisu campagne parrainage yee koy def léegi yéen dañ leen di ñaan parenage lu waay mën yóbbu dem parrainer ji Ousmane Sonko te pour ngeen parrainer ji Ousmane Sonko foog ngeen financer ñu xeex ngeen jot fiche de parrainage yi ba pare ku nekk jël sa 1000 francs yóbbu joxe ko addiye pour campagne bi bind sa tur ak sa numéro carte d'identité wala yóbbu 2000 wala yóbbu 5000 ñi mën yóbbu 10 mille 10 000 ñu mën yóbbu 100 000 100 000 pour parrainer pour financer te xam ne bu ñu amul 6 milliards Ousmane Sonko bu naree nekk candidat bu ñu amul 6 milliards mënuñu gagné élection bi 3 milliards sax campagne campagne naa AFP Moustapha Niass maa tëj élection 2000. li Ousmane Sonko xewal nii cotiser pour mu falu defaloon nañ ko Moustapha Niass dara du fi bees en 2000 te gañewul li ñuy defal Amadou Ba nii cotiser di ko joxal xaalis Moustapha Niass fépp partisans yi ñoo ko daan cotiser lii xewoon na fi te gañewul Sonko nag peuple baa ne da koy fal yéen yeneen neen da ngeen koy fal ci prison bi du ma wax kenn nu mu demee mais commencé na ñam na xiif daa metti kenn antunul xiif mu ngi jëlaat de te déjà amoon na ay séquelles mu ngi woon ci traitement boo xam waru ko dagg traitement boobu kese bu ko daggoon di lekk du wér te tey Sonko toll na foo xam ne buñ ko libéré woon xam nga tey lu muy wax ni mu defoon si élection législative lay def ndax day génn dem faju ji am na leneen lu mu tàll dul ay campagne te ñoo ko fa yóbbu dëgg moo ma sonal de buñ ko libéré woon tam bu naree jiite réew mi non du cinq ans yi la koy jiite xëy na beneen cinq ans mais cinq yi tam bu ko jiitee il ne sera pas performant ndax physiquement grève de la faim ba la jàpp na ko mentalement grève de la faim bi jàpp na ko ndax am na boo yoo xam ne dee nañu day wax seen tour sans tey ko kon moo lay wan mentalement grève de la faim bi atteindre na ko wala boog boo yi dee comme man ni ma boo yi def noonu la ko def xeex libéré xelu Sonko xeex libéré esprit Sonko xeex libéré Sénégal xeex libéré justice combat bi nag da ngeen siy jàpp rek ñu def ko ñàkk si jàpp rek ñi si mën jàpp jàpp si te ku si mënti jàpp tam même nga bokk ci état ñun dañuy jël xeexan ah, fu mu yem neex après bu dëgg wax dëgg jotee dañuy wax dëgg de munoo ki bokk si état dem ba xam ne état nekkul ci dëgg mu ñëw financé la pour nga xeex ki nekk passif toog croiser bara bras ne la xeexal xeex bi soo paree moom mu ñëw seddu du ci dal de fii kenn du fi seddu le don du soi lañ yem li passif Belgique def esprit bi ma def passif Belgique laa bëgg a fépp yow mii di jiite Pastef Belgique yow leer na la ne tey élection législative bu jotoon diaspora bi di tànn yow lañ naan yow tànnal kenn mais nekkul yow la ñuy tànn Ousmane Sonko fa la toll soo leen ma weddee ba mu génn jeel bi danaan ne diw loolooy dox di soit Alioune Sall mu gi jiite fii beneen yoon seetaan leen moom moo naan nañu wut bés buñ na Pastef dafa tànn moom mooy joxe kenn kii dem représenter Pastef au niveau Sénégal au niveau général léegi secrétaire poste boobu dañ koy def poste sacrifice ultime maanam ko fa nekk dootoo occupé benn poste politique senegal ce qui fait que ku ko nekk deux ans rek nga fay def kenn dootu ko sawar toog parce que fa la toll. liggéey joxe pour gars yi liggéey yow nga surveiller liggéey bi mais munoo bëggoo dem xëccoo Dakar ñëw na yaay superviser Dakar déedéet la politique ne se passe plus comme ça. anti système bi loolu la ñu woote li Ousmane Sonko woote le don du soi comme li waa Pastef le secrétaire général boo xasee nekk secrétaire général deux ans yi nga koy nekk dootoo occupé benn poste élection législative sax bu amoon yow sa tour du jàll wala yow secrétaire général Pastef Belgique wala Pastef France sa tour buy jàll comme adjoint ngay jàll mais doo nekk titulaire loolu la ñuy woote Pastef le don du sort kiy diriger ak liggéeykat yi duñu bokk ndax ñiy xalaatal Ousmane ko ñu ngi ci suuf kenn du ci politicien bëgg xeex bañ xeex jàpp leen ci bi ñu gagné ko yaa ngeen doon dem ci campagne bi campagne bi bloqué na nañ ko débloqué te combat moo koy bloqué. Paypal kese laa am ci 06 05 59 96 00 bu dee France la 00 33 6 lay commencé 05 59 96 00. combat bi mënaguñ départ ni élaboré nañu plan yëpp mais li ma booy wax c'est clair foog fonds yi mat carrément pour ñu départ combat bi basu moo basu moom bëri. ñii la ñuy xeexal fu mu toll nii ñii xeex ñoom détermination la ndax Ousmane Sonko gëmu leen ñii ñoo yore monde bi ba kenn sañul wax ci Palestine Israël man maa ci wax ndax ñu ñoo moom réew ma ay nit ku ñuul ñoo ko moom naafiq Sénégal yi bokkuma seen diine basuma basuma mbare su ko non ko abidje bokkuma seen naafiq